waaw. xale bu ndaw bi doomu Ousmane Diagne donc mi ngi fi mu nekk nii la ñu jël baayam tëj ko si yaa ma neexu Macky Sall lii moo fi am lii moo am lii muy jël voilà metti na metti na metti na carrément lii neexul metti na voilà. lii moo xew Sénégal voilà di ngeen ko gisee si Kàcc Kàcc TV pro Sonko na bàyyi doomu jàmbur te xool ni ëllëg dina am de incha allahu rabi. lii mooy dëkk. lii muy lebale yaa ngi en direct sur Kàcci Kàcci TV. lii muy lebale nii. na xalaat fayeeku ba na xalaat fayeeku na xalaat fayeeku ba lu yàlla nar moom lépp moo koy téye incha allahu rabi. daxal Macky Sall mu libéré gars yi ñu dem waaw li ko fi dese bariwul nañu may jàmm ak salaam lii mooy dëgg bàyyi gars yi parce que dëkk bi démocratie moo ko yor la bàyyi gars yi ñu def ñu def Mito tey deful dara Mito deful dara Mito par passe spéciale bi Macky Sall nañu may jàmm ñu yàlla ah ayca ayca yaa ngi ko kàcc kàcc kii bi waxal normalement waajoo yi ko war a bàyyi parce que deful dara il n'a rien fait de mal ko jàpp nañ libéré gars yi ñu bàyyi jox ngeen ko nii la ko gars yi waxee nañu bàyyi doomu jàmbur ñu ñibbi seen kër. bàyyi doomu jàmbur ñu ñibbi seen kër voilà. je veux pas ci dëkk bu wasa wax wax bi kon donc ñu ngi góorgóorlu ba ci ay fan ñu génnee Ousmane Diagne ak Papito Kara sinon dafa nekk tànn bu nekkee lépp lay dem te ñun on va continuer à rire on va continuer à dire loolu nag xëy na Macky Sall nee na wax nañu. Macky Sall dictateur moom mooy Daouda Togola. libéré donc voilà Daouda Togola passé na message. Macky Sall dictateur mais nag fii kenn mënuñoo tere. libéré les otages dañ koy wax. Macky Sall commercial. voilà procureur corrompu procureur corrompu Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur libéré. loolu la gars yi wax léegi les otages fii la si gars yi toll. Macky Sall dictateur. nee nañ Macky Sall dictateur la. procureur corrompu loolu mooy dëgg. procureur corrompu. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. procureur procureur comédien. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Libérez les otages. Libérez les otages. Libérez les otages. Libérez les otages. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Libérez. Ousmane Sarr nitu doole. mafia bi kenn du ko tas la gars yi wax. mafia bi ku ci bokkul. réew bi dalee dal. waa ñoo ñu ngi fii. waa Africa Post ñu ngi fii. Eh, waa FRAPP ñu ngi fii. lii moom pancarte bi mu yore ñu ngi si libéré notre frère et camarade Pape Mamadou Seck eh, moom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee passe spéciale si ñooñu la bokk otage yëpp la wax nañ leen bàyyi. waaw otage yëpp nañ leen libéré libéré Pape Mamadou Seck et tout le monde la ñu wax voilà nañ ko xamee noonu na ko Macky Sall xamee noonu li ñu ñi wax nee nañ. Macky Sall lépp lu la naqari neex nañu te sa ay tant que respecté tuloo suñu ay droit dootuñu respecté sa ay loi lii la gars yi wax comme loi yi dootul ay loi pour Sénégal ak sénégalais yi loi yi moom dañ koy tëgg di ko voté di ko def ni mu leen neexee loolu gars yi dañu ne géej dootul am. te képp koo xam ne respecté wu seen ay droit dootu ñu respecté ay moo leer sénégalais yi taxawee ko di ko wax di ko jëfee moo tax ñu génn lii moo am te muy dëgg lii début combat bi rek jaral ci sacrifice Macky ko jaral ci sacrifice ko jaral ci sacrifier force spéciale force spéciale force spéciale lay wax ak tumbi si presse gulum bi marionnette yow l'observateur yow laay waxal yow gulum si yow laay waxal lu ji njàkk yéen yéenay njàkk suñu doom yi suñu nekkee rëbës ñu naan leen force spéciale yéen la yéen yéen bi tëjee Imaam Ndao yéen tey jii Ousmane fi mu nekk yéen yéen a ko baax yow Youssou Ndour nee nga Macky Sall moo la arrangé mais ñun patriote yi la majeure partie des Sénégalais Macky Sall arrangé wuñu. lii moo am lii nag wax lu wér. Ousmane Diagne suñ ko bàyyiwul c' est le début du commencement lu mu jaral Macky Sall ci jàpp doomi Sénégal di leen terroriser ñun danañ moom. le combat est dans la rue lii nag l'éternel commencement képp wax na ko nee na le combat est dans la rue suba mafia kàcc kàcc bi ak la jeunesse patriotique. Sénégal. Macky Sall le dictateur. Cameroun Macky Sall le dictateur. Libérez les otages. Libérez les otages. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Procureur. Sall dictateur. a Sall dictateur. ñoom Ibrahima Gueye ne leer. procureur ñoom Lamine bu kàcc kàcc. Mamadou Lamine Sall. Macky dictateur. procureur corrompu. procureur corrompu procureur corrompu Macky Sall dictateur voilà Macky Sall dictateur l'ensemble des mouvements citoyens libérez les otages Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur libérez les otages libérez ko xamee noonu gars yi dootuñu bàyyi leen di def dara ñoom pro Sonko ñu waa Petersen wàcc si nañ nañ ko xamee noonu waa Touba am nañ ci ay représentants Ndakaaru ñëpp gis nañ leen génn nañ voilà waa ginnaaw raay famille Ousmane Diagne waa Papito Kara fam ak famille yam ñoom Vito Mamadou Lamine Sambou ñoom ñëpp Pogola. encadré par la police donc nañu xam ne ni que si nit ku nekk mën na fi léegi parce que ñu ngi nii manifestation bi encadré nañ oto yi ñu ngi dem di dellu si nit ñi manifester ñu ngi manifester entravé wu ñu dara ku nekk ñu voté affaire de situation lañ ko xamee voilà lii moo am te muy dëgg. procureur anarchiste. procureur anarchiste. procureur corrompu. li ñuy wax procureur Macky Sall dictateur. parce que moo ko def nag. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. mu recevoir ay saagakat. yu nekk nii yu jigéen du si wax. mais arrestation arbitraire yi. waaye Macky Sall mënul supporter ñu dénoncer injustice bu nekk ci réew mi. Macky Sall xoolal ñun ak yow. nañ ko xamee noonu ci fer dinañu dénoncer injustice bu nekk ci dëkk bi Macky Sall. te di nga libérer suñuy otage par la force dañ ko négocier wul Macky Sall. tu es un dictateur Macky Sall. Macky Sall tu es fini Macky Sall. Macky Sall tu es fini tu es fini yow ak ñi nga àndal ñu corrompu ñu ñëpp suñu institution yi naka lañ mën a comprendre ku jàpp suñu police saaga leen ci kanam ñëpp ñu koy dégg ku jàpp suñu magistrat yi honnête ñu saaga leen kenn defu leen dara Macky Sall jàpp saagakat yooyu di ànd ak ñoom di selfie ak ñoom di def ak ñoom live di leen encouragé ci li ñu nekk ñun ñu nekk fii en tant que digne citoyen digne fils du Sénégal ñuy dénoncer loolu Macky Sall nee na du ko dégg mais Macky xoolal je vous le jure di nga ko dégg par la force réew mi réew démocratie la mi nga bëgg a salfañe libérer les otages. libérer les otages. Macky Sall corrompu. Macky Sall dictateur. Macky Sall co-dictateur. Macky Sall dictateur. procureur corrompu. procureur corrompu. Matar nga wax ko mu ñëw jël micro bi tuur ci voilà. Macky Sall procureur corrompu. procureur corrompu. Ah, procureur corrompu. procureur corrompu. salaamaaleykum mbokk yi. ñu ngi di ziar yéen ñëpp. di teewaay fii ñu koy rafetlu. d'abord dañuy ñaawlu ba fu ñaawlu yem. suñu match bi dañ ko saboté woon parce que dañoo bàyyi ba dernier moment à deux heures de temps pour ñu démarrer lii ci la ñu doog a jox autorisation ba tax na tey ñëpp ñu waroon teew gisuñu leen fii loolu dañ koy ñaawlu dañ ne ñun fii Sénégal dëkk droit la dëkk yoon la te yoon dafa ne soo yëgluwee que da nga am doxu ñaxtu boo war a def war nañu jox benn fan lu mot benn fan c'est-à-dire vingt quatre heures avant war nga jot sa notification mais defuñu ko dañu bàyyi ba mu Marrakech libérez les otages libérez Ousmane libérez Ousmane Macky Sall le dictateur Macky Sall le ko gis mi des forces spéciales ni ko gars yi waxee ñu ne mais ay force voilà Macky Sall le spécial Sénégal amul terroriste waaye loolu la ñu wax ñu ne Sénégal amul terroriste. wax ne Sénégal n'est pas les pays Sénégal. voilà li xew ci pays limitrophe Sénégal yi xewul Sénégal fii ñun xamuñu ay force spéciale xamuñu terroriste xamuñu loolu pays de la teranga la ñu nekk gars yi ñu ne la ak ah, ay ñoñam ñi ànd ak moom ñoo créé force spéciale ñoom ñoo créé yi am ni yëpp voilà injustice bi am ci dëkk bi ñoom ñoo ko fi def Macky Sall ki ñoñam na ko gars yi noonu voilà dans la convivialité nit ñi nañ seen ñaxtu encadré par les forces de défense et de sécurité procureur procureur corrompu. procureur corrompu. procureur donc Sénégal xam nañ ne que marche yi nga xam ne dañ koy bañ war nañ ko mun di ñàkk bañ parce que chaque fois que c'est encadré comme niñ ko defee nii tey nit ñi dinañ mun marche te coow du am bal du tàkk fotol du jin donc nit ñi nga xam ne ñu ngi leen di rey si manifestation yi mun na bañ a am voilà si les manifestations sont encadrées. loolu noonu du am ray du am Idrissa Goudiaby yàggul dara mi ngi nii ay mbokkam suñ ko jébbalee boromam yàggul donc nañ ko xamee noonu chaque fois que les manifestants les manifestations sont bien encadrées y a pas de problème y a pas de mort la preuve en est là mi ngi nii la manifestation elle est très bien encadrée on va pas déplorer de mort ni rien donc na ko gars yi noonu Sénégal lii moo fi xew bañ manifester voilà tey nag nangu nañ ko gis nañ ko ni ça se passe très très bien na ko gars yi xam donc voilà lii moo am te muy dëgg voilà gars yi ñu ngi continuer seen doxu ñaxtu voilà ñi ko constitution bi waxee. Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Procureur corrompu. Procureur corrompu. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Procureur corrompu. Procureur corrompu. Ousmane demal demal ñu déglu ko ba xam exactement lan mooy xalaatam voilà. voilà alhamdulilah sant yàlla bu baax. parce que Ousmane suñu frère la suñu mbokk patriote la donc li ko dal ñun suñu bopp la dal suñu kaw la dal donc loolu moo tax tey ñu wàcc suñu soxla yëpp ñëw taxaw ci xeex bi parce xeex bi amul tànk ginnaaw tey lii dal Ousmane Diagne ëllëg mën nañoo dal ñun mën nañ ko fekk ci kaso comme ñun mën nañ ko faa remplacer donc te lépp lu ci nekk rek xeex la boo xam ne ñëpp ci war a dugal seen loxo ñëpp taxaw parce que li muy def nii wax dëgg yàlla dañ ko cee bàyyi dañ ko cee bàyyi donc lii nag peuple bi rek moo mën a taxaw arrêté ko donc peuple bi moo mën a taxaw arrêté Macky Sall te il fallait ñu taxaw arrêté Macky Sall ci lii muy def nii parce que lii dafa sonn nit ñi dañ ci yàgg parce que Macky Sall Sénégal yi desaloo tuñ ko dara desaloo tuñ ko dara donc lépp lu mu laaj defal nañ ko ko donc moom nag moo waroon a doomam te defu ko au lieu que mu def loolu defu ko mu taxaw encore di teew jeunesse bi yooyu tey ñoo war a taxaw jàkkaarloo ak moom jël seen responsabilité fas yéene jëflante ak moom incha allah dinañ ko def jërëjëf amin wa yàlla les droits de dañoo dafa bafoué dafa reculer ci réew lan moo ko waral ndax envie dictatoriale bi mu am et pourtant les gens avertis ku mel ni Sidi Lamine Niass nous avait averti nous avait dit que un jour viendra bu ñu baarewul Macky Sall dinañu tere sax wax te jamono ji ci lañu ñu toll naka nga mën a imaginer un procureur mu ne dafay autosaisir parce que un citoyen dafa am dafa ree publier benn affaire mu ree c'est honteux c'est une honte il doit avoir honte fi mu nekk dafa war a rus ndem dese na tuuti gàcce wala tuuti jom si moom dëkk bii li fi nekk du dëgg du yoon Macky Sall est un pire dictateur dañ ko war a wax te dafay dañ procureur boo xamante ni c'est à la solde du président de la République. mu ne ma sarak Papito Kara du fanaan si tey yoon na ko teg loxo ma ne ko lu mu def waaw ñu ne ma yoon daal du fanaan si man leen nag xanaa nag nit boo ko jàppee yoo xam lu mu def waaw waaw reetaande la reetaande lan di jël waaw kon nag xam nga ne réew mi amul yoon moom mi ngi jóge ba Touba kon nag nan ñëw tey pour fekkee ci euh, marche bi ak manifestation voilà lii mënoon na ñàkk si dëkk bi Sénégal gi ñu nekk dem na si gaaw di leen dawloo suba ba léegi chaque jour chaque jour ñu ne ñu naan ne tey suba tey suba waaw gis nga teg na ña nga ñu teg na pour que bu amul woon nga yoroon ko bu amul woon stress da nga wax waaye du war dara waaw ba noppi ba noppi ñëw ñëw ñëw ànd ak ñëw ànd la ñëw néeba yaakaar na booy bi daa ay ay ordinateur lu ne ñëw néeba ba mu tas ñu xool gisuñu dara ñu bàyyi ko noonu mu def boobu ba léegi nag amuñu benn nouvelle waaw loolu nag ñu ngi ñu ngi tàllal ñëpp loxo nag ñu génne ko jàmm barki bon tuwa maa ne jërëjëf voilà le frère à Papito Kara moom lañ doon interviewé noonu nee na policiers yi dañoo ñëw salfaañu néeg ba l'extension du soleil jëm mbay la ciy teg jëm mbay Macky Sall jëm asalaamaaleykum ñu ngi woote mouvement yi fi nekk te wér waa Africa First seen coordinatrice si donc vous l'avez entendu waa Africa First premier mouvement à se prononcer salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu teewaay bi tey parce que ku xam jamono xam ne nawet bi réew mi baax mais en tant que ay ndaw bàyyi nañ fu suñu yitte bàyyi nañ ñu yitte pour ñëw fi tey taxawu suñuy naataango yi nga xamante ne dañ leen a jàpp ci jàppin ba nga xam ne àndut ak yoon. li ñu fi indi tey mooy jàppale ñooñu nga xam ne Macky Sall daf leen a jàpp ak i ñooñam moom jàpp leen ci loo xamante ne ñenn ñi mu ne ay force spéciale lañ maanaam ay terroriste ñenn ñi ñu ne dañ leen a jiñ dañoo partagé ci réseaux sociaux yi la nga xamante ne du dëgg ci benn presse muy L'Obs muy Ousmane Diagne ak Papito Grasso ñoom ñoo partagé journal bi ñu wax ne li ñu wax kooku du dëgg ñuy laaj nag ci ban Sénégal lañ nekk buñ demee ba Sénégal bi ñu yaakaaroon ne ku am lu la métti dem ci yoon yoon def liggéeyam nga tëdd nelaw ba yandoor ñun ñooñu tey ñun ñooy am problème bu ñu ñemee dem ci yoon parce que dañuy naan buñ demee liñ fay séntu buñ ko am parce que yoon bi dafa nekk yoon boo xamante ne ku am ndey la ak ku ma amul ndey ñu leen neex la faral ñu leen neexul. ñu leen di di leen di ñàkkal fayda di leen di torturer di leen di tëj nag dafa jot tey ndaw yi surtout ndaw yi am fulaak fayda di li fi nekk tey parce que injustice la parce que dañoo ne Sénégal réewum démocratie la te lii nekkatul démocratie Macky Sall nag daf ñoo yeetal ba ñu fal ko muy def lu ko neex parce que def lu ko neex weesuwul démb muy 2012 activiste yi mu topp tey ñi mu jàpp tey naan ay terroriste la ñoo ay force spéciale la ñoo ñooñ ñoo ko doon xeexal parce ko xam-xam ne du xeexkat ku ko xam-xam ne ñemewul bay wàcc sur le terrain ñi mu jàpp tey nag seen réew moo leen jaral lépp seen réew moo leen jaral di tëdd foofu ci ngor ci njëkk ak teraanga tëdd seen fen mais Macky Sall bu doon góor fàttaliku démb xam ne activiste yi muy torturé tey ñoo ko fi taxawaloon ñoo ko bi ne Sénégal lañ war a bàyyi ku ma am ndey ak ku ma dañ ko war a ñun ñëpp Sénégal la benn bopp la kenn war ko ñu ñaar te naax féete bi bëri na seytaane bi bëri na am diw kaay ma làq làq doom dóor doom daf see bëri Papiko Kara Ousmane Diagne ñeneen ak ñeneen ba ci Ami a ba ja ca Guédiawaye nekk jigéen nekk mère de famille ñu jàpp ko boobu ba léegi kenn waxul ci ay mbiram Sénégal may laaj ban dëkk lañ nekk ana góor yi fi nekk ana kilifa diine yi fi nekk ana ñu fi nekk ne lañu bëgg yoon la xeexal képp ka nga xam ne yaa ngi sa kër nag yaakaar ne sa yoon nekku ñi nekk ci mbedd mi dañoo am jot ah waaw yaa ngi nax sa bopp parce que Macky Sall bàyyiwul kenn Macky Sall bàyyiwul kenn ma leen di wax na nag bu paree ci ñi muy jàpp nii ci ñun ñëpp la jëm. ku ci nekk nag rëccëgoo tant que Macky ci réew mi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen fàttali nag dëkk ay ree ku ree dañ lay tëj wasalaam coordinatrice Sylvestine Mendy kon boog bu jaabi bu waa force spéciale waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah gars yi maa leen di siyaar mais xoolal ñu baax si ñun niru nañ leen ay élément force spéciale xoolal ñu baax man je suis entrepreneur di daan sama doole comme bopp comme bépp sénégalais yeewoo ci biir dëkk bi kii sol nii moom mooy papa Ousmane Seck xoolal bu baax kii seen agriculteur nekk ci ay projet ma moom ba Toubacouta maag moom ba Casamance di développer lu ñuy woowee apiculture seen apiculteur di participer à l' di participer di participer ci environnement wu dëkk bi muy Sénégal donc euh, ki mel dañ ko war a jëmmal war ko jàppale ci li muy def mais place am du fële euh, rëbës alors di ñaaxaat encore une fois euh, suñu justice bi ñu taxaw ci seen dossier parce que nag gars yi ñu fee waaj a yàgg ils ont fait plus de quarante cinq jours foofu noonu ñun la ñu fekkoon BCEAO BCEAO yéen a koy fàttaliku sama gars yi ñu ngi ci ginnaaw yaa kii baa ngi ni taalibe yaa bay naa ci ginnaaw donc ñun la ñu fekkoon fële ca place BCEAO ñuy lekk suñu mango di naan suñu ataaya ñu jàpp ñu ñun ñooy élément force spéciale yi yóbbu ñu euh, police centrale daal ñu libéré ñun daal di téye suñuy ñoñ ña nga fële actuellement di rëbës démb nag maa ngi ci déggante ku ñuy Pape Ousmane Seck voilà déggante nañ waxtaan nañ. nee na ma ñoom ñu si jàmm mais li ñuy wax état bi mooy fii kenn mënuñoo intimider ñun suñuy maam dañu xeex ñun Cheikh Ahmadou Bamba dañu xeex ba jot li ñu li doon mu muy si El Hadj Malick Sy Baye Niass ñun ñëpp dañu yàgg a xeex seen droit ba jot si. alors mënuñu yegg si ñun ñu dañuy intimider ñu fekk suñuy kër dañuy intimider dañuy traquer dañuy yóbbu à la justice dañuy malmener dañuy torturer et sur ça dama bëgg ñu wax ñu ci kaawu François Mancabou. justice bu François Mancabou loolu foog mu leer François Mancabou fii la doon tëdd muy transpirer naan ma gudd ubbu ma ma koy ubb fois dem nañ ba benn instant sax tànk bañ kii yaa ngi nii bay naa leen du ma bàyyi ma fenn mu naa ma jëlal jëlal ma sama tànk yi nga étiré ma parce que actuellement je sens pas vraiment mes jambes ma ko si doon jàppale donc foog ñu leeral affaire yi justice euh, par rapport au cas de euh, François Mancabou que justice soit faite par rapport au cas de François Mancabou démb rendre nañ kooram à sa famille alors neewoon nañ dañu def autopsie mais ba léegi waxuñu autopsie bi euh, ba léegi joxaguñu résultat yi ñun nag ñoo ngi xaar sénégalais ñu toog ñu toog di déglu avocat am yaakaar nañ dem wax na si ñoo ngi déglu résultat yi nañu wax si vraiment François Mancabou a été torturé jusqu'à la mort wala François Mancabou dafa xarul te ñun sax kaaw xare bi ay dégg-dégg la ci am dégg ngeen lu ma wax fii nii nii sànq. nee naa leen bien muy dem fële pavillon spécial. François Manga bu yendu na ba tàyyi sama tànk fii ma koy ëpp doon transpiré xamuñu nag lu ñu ko jox mu lekk xamuñu lu ko def xamuñu wax ne ko torturé wala justice euh, euh, pour François Manga bu foog mu nekk nag muy Assane Dramé Ibrahima Diédhiou Mor Gueye Madika Diop Ami Dia ah euh, Pape Mamadou Seck Pape Boy Ousmane Seck daan sama kala sama collaborateur Aziz Niang ñoom ñoom ñëpp ngi foofu noonu rëbës Ousmane Diagne Babito nañ leen libéré dans les plus brefs délais parce que actuellement nii lii dañoo commencé rek waaye dafay continuer du ñu bàyyi du ñu tay du ñu bàyyi tant que libéré ñu lay total merci beaucoup. waaw jërëjëf merci beaucoup Djibo Diaby kàddu yi am na solo. mi ngi woo la grande sœur du Papito Kara bu ñu jugee ba Touba bu ñu tudd Ndiaye Gueye man la soxna Ndiaye Gueye jóge ba Touba ñëw nag dina xaru nag eh, lii nga xam ne moo fi xew tey ndax damaa yaakaar ne man réew man lan nekk wala man Sénégal lan nekk ndax li ma gën a naqare euh, di reetaan bi mu tere te ñun waa Touba reetaan ndax suñ mun saxaa bañ na ko ba moom lu mu wax rek reetaan la koy fekk kon moom bu nee reetaan laay bañ ci dëkk bi loolu moom dina ma metti loolu ñun waa Touba nag bu tey wax bala ngaa yeggal reetaan foo seen bañ na ngay jëkk seen li ñuy laase nag nañ nag Ousmane Diagne ñu bàyyi ko mu nekk ci liberté am ak Papito Kara ak mboolem ku fa nekk ndax lii nag wax dëgg yàlla doy na waar lool métti nañu ba ci kanamu yàlla ñun ñoo ngi nii lekkatul naanatul ndax nii ñu def patutoo kara naqari nañu torop ba ci kanam suñu borom nan ko may liberté mu mën a génn loolu daal laa ci amoon lu ma ciy wax Ousmane Sarr. Ousmane Sarr. Ousmane Sarr. waaw asalaamaaleykum yéen ñëpp kon liñ fi dajal rek mooy injustice bi ñuy xeex ci Sénégal te mu continuer di law. lii dal Ousmane Diagne Papis Dôme ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi subir injustice bii ñuy dund bu kenn yaakaar ne mucc nga ci dem nañ ba reetaan sax doon crime fii ci senegal doy na na nit ñi jóg xam ne bu ñu paree ci Ousmane Diagne ak Papis ak ñeneen ku ci nekk muccoo ci li dal François Mancabou rek doy na exemple ñu xëy fajar fëgg la yóbbu la tëj la ba rey la kon Macky Sall nag li muy def mooy jéem a tiital jeunesse bi yëpp tëj suñuy làmmiñ jéem a muselé ñi xam ne ñooy conscientiser surtout jeunes yi te ku mel ni Ousmane Diagne ak Papito Kara kenn raw leen kon nag nañ fexe ñun ñëpp ba saa ñu jàppee kenn benn Ousmane Diagne wala benn Papito wala keneen. na miin Ousmane Diagne taxawaat pour continuer combat bi parce que tant que ñu ngi wane euh, ragal wala di nangu xoxotal bi bi ñuy def ci jeunes yi surtout parce que jeunesse bi dañoo déterminé pour révolution am ci dëkk bi loolu la Macky Sall di bañ buñ ci jàppee kenn na mille taxaw wane ne mun nañ porter combat bi wala plus que li nga xam ne loolu la ñoo ñu doon xeex mille yooyu taxaw pour continuer combat bi tant que ñi nga xam ne ñii ils sont déterminés à aller jusqu'au bout jàmm dañ ñu ko may te révolution dina am ci dëkk bi par force parce que Macky Sall li muy def bu ko peuple bi nangoo mooy continuer ba deux mille trente cinq wala ba deux mille soixante dix kon nag na ku nek nekk ne lii def koo concerné na ku ci nekk jàpp ne sa combat bopp la defaloo ko Ousmane Diagne defaloo ko Papito Kara defaloo ko Ami Dia defaloo ko keneen kon nag jeunesse bi déterminé te xam ne combat bi mu ngi soog a commencé kuñ ci jàpp rek jàpp leen ni yow jàpp nañ la nga continuer combat bi kon ñu ngi lancé ñëpp appel xam ne lii lu dul yoon dafa war a teg te dictature bi Macky Sall di nekkee ñun jeunesse bi ñoo ko war a arrêté jërëjëf. ñoo ko déggandoo dictature bi ñun jeunesse bi ñoo ko war a arrêté. am nañ fi euh, frère Amica ñu jàpp si mbirum partie partie spéciale yi.

Euh, te il faut que sénégalais yi xam ni que président bi nga xamante ni moom moo ñu jiite dafa taxaw pour nasaxal suñuy droit pour imposer ñu benn despotisme boo xamante ne nii Sénégal musu ko xam waaw di exiger nag ñu libérer bépp otage boo xamante ne nii téye na leen tey waaw libéré euh, ñoom Amidia libéré ñoom Ousmane Diagne Papito Kara ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi ci biir kaso bi loolu mooy suñu suñu suñu exigence. loolu la ñu te il faut ñu def ko parce que dañu war a retrouver seen activité depuis euh, un mois mi ngi entre les mains de la détention nekk fële Cambenaw ñu téye ko euh, ñun ay mbokkam ñoo ci nekk di yëngal waa juge bi nangu ko recevoir dañ ko jàpp jéem ko signaloo benn PV préétabli loolu mooy li mu wax moom bi muy dem euh, sûreté urbaine dafa fekk un dossier déjà préparé mu ñëw ni du ko signé loolu la affaire bi demee toppewuñ leen ay caaxaan la c'est boo xamante ne nii ça doit cesser au Sénégal te dinañ ko ko combattre avec la dernière énergie incha allah force à bout de dégg nañ ko dinañ ko combattre jusqu'à la dernière énergie lool la wax xamale ko te loolu tamit mooy dëgg. bu fi nekkee mën na jege si après euh, waa FRAP ñoom ñooy wax leen yor seen kàddu Papis Jim la Papis Jim. bon salaamaaleykum mbokk Sénégal maa ngi nuyu kenn ku nekk euh, ak turam ak santam euh, di wax nekk lu ñu waral tey manifestation bi damay sama message bu may bu may bu may lancer yi dafay clair parce que dañ nekk ci dëkk bu nga xam ne dañ on a en nga xam ne lu ko neex te ma lay wax li ma leen di wax li nga xam ne que moo nekk di am actuellement euh, l' affaire Mancabou l' affaire Mancabou dafa doon affaire boo xam ne dafa sensible te man sama. allez allez. voilà donc man lu may wax sénégalais yi mooy benn kàddu rek la Mancabou a été arrêté arbi arbitrairement il a été torturé et assassiné donc may wax sénégalais yi que euh, bu ñu seetaanee lii ñun ñii lu ñuy wax li nga xam ne que les pays yi nga xam ne amul démocratie. yi ngeen daan dégg les escadrons de la mort ñun ñii on est actuellement en danger parce que bés bu nekk. heure bu nekk waxtu bu nekk seconde bu nekk mën nañu fekk suñu kër yóbbu ñu torturer ñu assassiné ñu te kenn du ci mën dara donc il est temps que yi nañu yeewu il est temps ñu xam ne que ñu mel ni Ousmane Diagne ñu nga xam ne ñu conscientiser sénégalais yi xam ñu nga xam ne que luy xew lan mooy démocratie ñuy ñu ñu ñuy ñuy yee injustice il est temps que ñu bàyyi ñooñu ñu continuer seen liggéey ndax démocratie am Sénégal ba Sénégal dëkk jàmm la mais nekk fi nga xam ne que président boo xam ne lu ko neex lay def. royaume la fi bëgg a créer wax dëgg yàlla il faut sénégalais taxaw ci loolu donc maa leen di jaajëfal bu baax a voilà kenn du nangu Macky Sall créer fi royaume loolu la wax te loolu tam mooy dëgg doonul réew mi papam moomu ko aussi yaayam tampook voilà. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, on est là pour le cas de mais il est important de rappeler qu'on est là président délinquant. Et dans tous les pays on a président délinquant, on a un procureur On a un doyen des juges délinquants. On a des policiers voyous. On a des gendarmes soumis. C'est-à-dire à côté de chaque il y a une association de malfaiteurs. on nombre son président délinquant donne les ordres. Il y a un juge corrompu, il y a un juge soumis qui obéit à ses ordres illégaux, illégitimes. Parce qu'aujourd'hui, c'est inconcevable d'avoir un président comme Macky qui connaît la réalité sénégalaise et qui se permet de faire ce qu'il fait. C'est pas anodin. Macky c'est son enfance difficile qu'il veut faire payer au peuple sénégalais. On n'est pas responsable de son enfance difficile.

Nous, on fait partie de cette jeunesse qui fuit le combat, qui voyage en Méditerranée, qui profite des voyages d'études pour fuir le Sénégal. On est au Sénégal ici, on va se battre contre lui jusqu'au dernier jour. Et nous profitons de l'occasion pour dire à nos frères qui sont dans la diaspora, parce qu'il y a un frère de Kungel qui était au Maroc, il a été attrapé aujourd'hui, ça six mois. tout simplement parce qu'ils faisaient des lives, ils dénonçaient la, spoli la, la, spoliation foncière qui se passait dans son département. Ça fait six mois qu'il est en prison. Pas de procès, On, lui a rien Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit tout à l'ordre public. Comment quelqu'un qui au Maroc, qui fait un live pour dénoncer les spoliations foncières avec les preuves à l'appui, on lui dit trouve à l'ordre du diable, et Macky ça les on a des procureurs délinquants, on a des policiers voyous, parce que tout policier, tout gendarme qui obéit à un ordre illégal, c'est un délinquant, c'est un voyou. Mais nous, n'a pas l'intention de se laisser faire. et son association de malfaiteurs, dont Madame Faisal fait partie, parce qu'aujourd'hui, ils ont créé un mouvement qui s'appelle Diapal Madiap. Diapal Madiap, Madame Faisal, là, avec cinq les policiers voyous qui nous agressent de temps en temps mais fii c'est ñafal ma on a créé ñafal ma ñaf. day non seulement on sera sur les réseaux sociaux mais nous sommes sur le terrain. Ah, nous, n'a pas de cagoule, on vient avec visage découvert. Si on devait mettre les cagoules, on devait rester sur Facebook en train de créer les faux comptes en de faire des insultes n'importe quoi. On n'a pas de faux on n'a pas de faux profil, on n'a pas de cagoule. On marche à visage découvert parce qu'on a l'intention de combattre Macky jusqu'au dernier jour de sa vie. Parce que Macky Sall a fait du mal au peuple sénégalais. Et on lui laissera pas. Même s'il n'est plus au pouvoir, on lui laissera pas. Parce que Mme Faisal, le moment où elle danse, la maman de Ousmane Diagne est en train de pleurer son ah ah ah Le moment où Madame Faisal en train de danser, la maman de d'autres et d'autres et des milliers de Sénégalais qui sont attrapés injustement sont en train de pleurer. Mais un jour, un jour, va se mettre à pleurer pour son mari, pour son beau-frère, pour son fils qui sont en prison. Parce qu'ils sont allés dans, le tort de le peuple sénégalais pour devenir de plus en plus riches, mais ils vont jamais échapper. va finir à terre. Va finir à terre, mais de façon très dégueulasse. Macky Sall va finir de façon très dégueulasse. Je vous remercie. Voilà. Après le ñafal ma ñaf. Loolu la gars yi wax. Voilà, ñafal ma ñaf la gars yi wax. À luta continua. J'espère que ñëpp dégg nañ lu camarade bi wax ku ko dégg muy wax xam ni xol bi fees na te li muy wax yëpp kaddu dëgg kese la wax ba ba léegi ñu ngi taxaw dëggal seen bopp kooku mooy Papis Djim yoroon kaddu Pape France kon ñi ngi woo Ousmane Sarr bu nitu dëgg des valeurs Ousmane. Ousmane Sarr valeur. vous avez la parole. waaw asalaamaaleykum. Euh, man la seen kàddu Ousmane Sarr ñu fi indi yaakaar naa ñëpp xam nañu ko Macky Sall mi ngi koy di ko teg si kaw citoyen sénégalais yi depuis 2012. ñu gis ne dañu farete ñi nga xam ne mooy suñu ay frères muy Ousmane Diagne ak Papito Kola Ousmane Diagne tax ñu arrêté ko yaakaar naa jël ñu koy répété parce que yéen ñëpp xam ngeen ko muy ay reetaan parce que procureur nee na comme Macky moom day ñàngal bëggul kenn ku reetaan kon ku reetaan rek moom day auto si suru woolu la kon c'est parce que reetaan wóoratul ñu jàpp suñu frère Papito Kara parce que dafa def benn revue de presse boo xamante boo xoolee ba si biir wax naa ko sànq affaire yu comédie la. te même noonu procureur amoon na ñoo xamante ni mënoon na leen a wóolu wala mu autosaisir parce que même jamono boobu muy woo Ousmane Diagne parce que dafa reetaan ay goro Macky la ñu ngi fi di suñu alal chaque année of naan di leen épinglé épinglé bi ci mujj muy Mansour ñu ngi ko épinglé si 71 milliards yoo xam daf ko détourné si alalu li nga xamante ni mooy plan ORSEC bi ñu teg depuis 2013 te def si plus de 905 milliards yéen ñëpp xam ngeen ne xaalis bi dañu ko détourné si diggante Macky Sall ay ministres am ak ñi nga xam ne ñooy ay directeurs am te même jamono boobu procureur amul dara lu mu ci wax. li am Sénégal nag yan ñëpp xam ngeen ko muy ay association des malfaiteurs ay délinquants yoo xamante ni nii dañu booloo ñoom seen biir muy diggante Macky Sall procureur de la République ak ki nga xam ne mooy doyen des juges Mamadou Seck. parce que fi Sénégal toll ak justice bi yematu rek si Macky Sall moom mooy xool ñu ko neex mu leen tëj parce que nee am na dossier yoo xam ne maa ngi teg sama concu waaye léegi fi mu toll mooy day gis koo xamante nii neexu ko mu woo procureur téléphone procureur woo ki nga xamante ni mooy benn commissaire de police wala benn commandant de gendarmerie bu ko defee ñu yóbbu ko directement fi nga xamante ni mooy garde à vue yóbbu ko si doyen des Mamadou Seck bu placé ko mandat de dépôt. yéen ñëpp gis ne nag bu ngeen xoolee yenn mandat de dépôt yu gën a yomb yi nga xam ne mi ngi xew fii nii si temps yi ñu passé yëpp ki koy def mooy Ciss Mamadou Seck Ciss Mamadou Seck mooy yor deuxième cabinet. nga xamante ni ñun xam nañ li waral muy def sale boulot yi parce que Macky Sall daf koo téye si point parce que xam ngeen ne Sénégal képp koo xam ne gis ngeen muy koo xam ne gis ngeen muy def loo xamante ni di ko teg si kaw askan da dara du ko parce que xam ngeen ne dafa nekk di def loo xam du neex Macky Sall la sis Mamadou Seck nag dañuy jàpp ne dafa bokk si ñi nga xamante ni nii Macky moo leen di alimenté en tant que doyen parce que bu ñu nee ba procureur de la république am ay yoo xamante ni nii dossiers yu mat la mu war ci wax waxu si waaye si lan lay wax si ay reetaan ay revue de presse c'est parce que lii dañu humilier si si su Sénégal parce que ñun ñu ban senegal la ñu nekk Sénégal goo xamante ni nii dañuy tëj ay dix fils de Sénégal di leen jàpp di leen tëj si kaso parce que parce que dañu contre ngi wax fii nag ñi nga xamante ni nii fi may daanelee mooy nañu xam ne ñun jeunesse bi nañu xam ne ñun ndaw ñi suñu yaay booy nañu xam ñu ñëpp Sénégalais yi mooy que ne jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall xeex ak moom si jaamu yàlla la bokk. jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall xeex ak moom bokk na si li nga xamante ni mooy tax sa jaamu yàlla gën a wér parce que boo amee ay président voyou. président boo xamante ni nii day sàcc alalu askan bi président boo xamante ni nii day violer les règles mais président boo xamante ni nii dafa jaay suuf ba amatul suuf bu mu jaay muy jaay suufu hôpital yi c'est parce que loolu nag jàkkaarloo moom xeex ak moom si jàpp yàlla boobu te gis suuf bi nga xam ne Macky Sall mi ngay jaay la daan rek bu demee ba amatul mu jaay li muy jaay mooy suufu armée yi dina dem souligner yi mu jaay suuf yi parce que jaay suuf moo jaay suuf la xam ne ok jaay suuf moo intéressé Macky Sall damay ragal nag pale bi si boppam mu mujj koo jaay comme jaay rek lay def. dañu jàppee Ousmane ba léegi jaay suuf mi ngi jaabante mi ngi dem mi ngi ñëw donc vraiment. donc la parole au professeur Cheikh Oumar Diagne voilà. asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen. di am te te si jotaay bu tedd bi euh, fekk suñu bopp yëpp ngi àndandoo di xeexandoo ngir dëkk ndax jotaay bi suñ ko doon misaal rek dañuy wax ni taxaw la xeex ngir dëkk euh, xeex tooñ ndax tooñ jamono ji euh, may faral di wax ni état dafa am dafa am ligne de comme lu amee produit mu amee cycle de dafa am cycle de état dafay tàmbali si ragal ko da lay am toute une puissance euh, état yëpp moo leen commencé ci àdduna bi di dem di dem yi di yeewu xam ba ragal boobu du fa nekk ci waaye wegeel moo fa nekk ñu commencé we état ndax xam ne ni état mu ñuy taxaw mu ñuy liggéey état su ko nee euh, tappalee di doole askan bi dem ba jamono bi nga xam ne état dañ koy commencé ñàkkal solo dañ koy ñàkkal dafa mel ni Sénégal aujourd'hui foofu la toog dañoo jël état bi infantiliser ko nekk si ay détails yu ñàkk solo di nargee askan bi wan ñu carrément ni ñu ngir suñu ay bëgg-bëgg ak suñu ay taxawaay di fàggaagal nag ñëpp ñi xam ne ñoo ñuy taxawu ak ñu xeexal Ousmane Diagne suñu la bokk ñoom Papito Kara suñu lañ bokk xale yéen ñi jàpp naan force spéciale lañ ci lañ bokk Euh, am na ñeneen ak ñeneen ñëpp ci prison bi ñi xam ne yëpp ci xoxotalu président Macky Sall moo tax ñu nekk ci prison boobu. aujourd'hui nag fi ñu toll période bu doy bu ñu war def très ndax lu bëri ci lu ndaw ndaw mën na basculer te tolof tolof mën na dugg ci dëkk euh, président Macky Sall nag xam naa ne ñu ko wóor yëpp ñoo koy ko woo di ko gumax ci ci musibam mu koy woo di ko ñaan ne ko na xoolaat taxawaayam na bàyyi réew muy fooyee. na bàyyee doole bi ñu ko dénk pour mu liggéeyal ni mu jël ko di ko caaxaane ak di ko toroxalee na na yeewu pendant qu'il est mu ngi yàq taxawaayu Sénégal su ma ko sax yàqu na pare waaye yu muy doxal nii instant yi na du mën ci dëkk su paree mandat te mandat am gëmuma mu yegg bi wax dëgg yàlla yal na yàlla defal ñu tawféex libéré ñii ñu jàpp teg leen loxo euh, Ousmane ñëpp Ousmane est très yàlla bi nga xam ne si lu ci dox xam na ko jullit ku am iman la ku ràññee diggante bi borom la ku xam bëgg-bëgg dëkkam la euh, koy wax ne kon na a dëggal na muñ ndax yàlla mu ngi ànd ak muñ kat yi lii épreuve kese la bi nga xam ne daf ci màggee rek waaye su torox mukk bi gaayo ngi donc yàlla may ndam ci réew mi yàlla na yàlla jëleel problème bu Sénégal ndax jamono bii Sénégal benn problème la mooy Macky Sall mooy seul problème bu Sénégal waaye problème bii moom dafa ànd ak benn mafia très organisée bu am ay magistrats am ay forces de défense et am ay marabout am ay fonctionnaires am ay investisseurs étrangers ñëpp dañoo àndandoo ci mafia bu organisée boobu pour toroxal ak pour foowee Sénégal di leen ko may di ko yàlla na yàlla may taxawaay ndax li ñu nekk nii wallahi azim ci xatu ñun ñoo ngi fi depuis deux heures trois heures te léegi ñu waaye ñoom dem ñu situé lii ñu nekk nii lii la yonent yëpp wàccoon si kaw suuf xeex caaxaan ak saxal dëgg alxuraan nag wax nañu ne qul jaa xaq wa al baatil dëgg teew la ko dina daal neen gi mati wallahi azim di woy yàlla na yàlla may ndam ci salaamaaleykum ñu euh, mu yor kàddu ñoo lànk salaamaaleykum maa gi nuyu ñëpp di remercier professeur Cheikh Omar mi ngi jógee di wax ni moom taxawaay ñëpp ko rafetlu parce que toujours mu ngi ci ay principe mu ngi ci fulla mu ngi ci fayda di xeex pour le Sénégal comme d'ailleurs ñi teew ñëpp parce sànq bi ma ñëwee li ma wax mooy ñi ma fi fekk tey ñu teew fi tey mbooloo bi ñu am mbooloo de qualité des gens yoo xam ne am nañ le sens du combat ba buñ leen woowee même bu fekkee dafa jàmp buñ nekkee en urgence dañuy bàyyi li ñuy def ñu ñëw fii maa ngi leen di gërëm di leen wax ngeen tàcc seen bopp mbooloo mi fi daje dañu war a tàcc seen bopp parce que c'est beneen bi ci topp damay adressé sama parole ci préfet de Dakar di wax ni administration dañ ko xam ci républicain administration du par parloo de Dakar dañ lay dañ lay ñaanaat parce que tey dañ ñëw indi yar ak teggin duñ la wax wax ju tegginewul parce que dañ ñu koy tere suñuy kilifa di ñu ko tere te yéen wax dëgg yàlla mérité wu leen nit di yëkkati ay kàddu sax yu teggi ne di ko di ko jëmale ci yéen parce que jëfu leen ko ñu la bind depuis lundi à 15 heures ñu bàyyi li ñuy def yëpp daw ñëw bind la ni ñu ko sartu réew mi waxee nañu bépp manifestation bu ngeen bëgg a def da ngeen di def da ngeen koy déclarer l'autorité compétente ñu def ko ñëw bind la nga ñuy traîner di ñu traîner di ñu traîner ba ñun ñoo yëkkati suñu téléphone di la woo te mënoon nañu ci bañ a fekk mais doon ay républicain moo tax ñu def loolu yëkkati suñu téléphone woo la nga ñuy traîner démb le secretaire général Mohamed Diallo woo la nga ne ko xaar leen ma maa ngi ñëw ba la ba tey ci suba à midi lañu la commissaire soog a woo pour notifier ñu autorisation bi loolu li nga ci jublu xam nañ ko moo tax may saluer teewaay ñu fi nekk parce que li nga ci jublu mooy déstabiliser ñu yàq suñu manifestation loolu nag li muy tekki rek mooy préfet politique nga loolu nag ku ñàkk jom moo koy def maa ngi jégalu ci kàddu googu ndax samay waajur lañ ma koy tere mais ñàkk jom weesuwul loolu munoo nekk munoo nekk un autorité ñu teg la nga jàng bi ngay jàng xamoo Macky Sall sa bàyyi sonn ci yow ñëw teg la nga ñëw di jaamu Macky Sall fàtte ni askan wi ñoo la fi teg loolu wax dëgg yàlla war ngaa xoolaat taxawaay boobu te biñ fi toogee ba léegi nag ci loolu nga nekk te dinaa la yëgal dara loolu dina dakk ndax bu waa APR bindoon wala bennoo Bokk Yaakaar dans les vingt quatre heures di nga leen situer ñu xam fan fee féetee ñun mënoo ñu téye ba tey à midi nga ñuy soogay notifier euh, autorisation bi loolu wax dëgg yàlla ñu ngi lay wax nga xoolaat loolu duñ ko nangu te ñu ngi koy wax les sénégalais ñun ay républicains lañ nous sommes des sénégalais li ñu yoo sartu ndeyu réew mi sant moom la ñuy def kon autorités yi ñoo koy jalgati. beneen bi may ñëw mooy ci sa buur mooy ki ñu naan Macky Sall Serigne Touba dafa nañu walam yàkkil nii li ahadin fii safarin wa baladin nee nañu nguur gi buur boo xam ni yërëmu la du sa buur Serigne bi nga xam ni tam. Euh, xamu la du sab sëriñ loolu li ma ci bëgg wax mooy ma ci Sall amul yërmande ci askan wi moo tax képp ku jug rek mu jàpp la yaakaar ni yóbbu la ci kaso bi mooy faj mbir mi te yaa ngi radicaliser la jeunesse sénégalaise parce que képp ku ci dugg ci kaso bi boo génnee da ngay gën a am fit loo doon def benn di nga ko yokk ñaar stratégie boobu baaxul nit ñi dal sa kaw nga yaakaar ni dañ lay wax lu la naqari waxuñu la lu la naqari yow yaa wàcc yoon wa ba ngay jël sunu réew en 2012 discours bi nga doon tenir ak li fi xew tey dafa wute kon donc lii lay wax da ko mérité boo jekkalee sa toogaay rek nit ñi jekkal seen i kàddu Ousmane Diagne liñ ko jàppee ak Papito Kara am lu ndaw lu ma ci bëgg a wax Ousmane Diagne li mu publier journalu l'observateur authentique la publier wul journal boo xam ni dañ ko caricaturé authentique la publier def ci reetaanam ne lu naqari lobsu neex nañu mais ban dëkk lañu nekk xanaa nekkatuñ ci liberté d'expression nekkatuñ ci démocratie procureur jàpp ko ne daf ko publier boole ci ay reetaan mais lii vraiment ñàkk fayda mënu ko weesu dama ni Macky Sall Macky Sall na benn affaire ci Sénégal képp koo xam ni traître nga képp koo xam da ngay agir agir à l'encontre bi peuple képp kuy agir ci loo xam ne du du intérêt population bi Macky Sall feeñal na la loolu Macky Sall réussir na ko beneen bi mooy Macky Sall mu ngi discréditer suñuy institution la police gendarmerie l'administration surtout l'administration territoriale seetaat leen seen bopp seen jàng bi ngeen jàng ba agsi bi ngeen agsi du Macky Sall bu fi jugee les institutions demeure les hommes passent Ablaye Wade jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Macky Sall da nga fiy jóge keneen day ñëw yëkkati leen seen bopp il faut que ngeen jël seen responsabilité la justice réew mu dox justice moo ko doxal justice bi am nañu indépendant rek xam nañ ko mais am na ñoo xam ñu ñàkk jom lañ te justice bu wàccee cim réew réew ma tasaaroo na anarchie moo fay am discrimination bi am ci dëkk bi nag dafa war a dakk ndax Sénégal yi ñëpp a bokk njiitum réew day am yërmande bu amul yërmande ñu sànni ko sa xaj mu ngi noonu. voilà. waaw njiitum réew su amee yenn taxawaay euh, solution jege si. waaw di di di waxaat le préfet moo taale tiim te ñun ay républicains lañ saa su manifestation amee dañuy def le ba déclaré que daanee jeune comme ni ko Fallou waxee sànq gis nañu démb dañ ko mujj woo mu ne toog leen xaar naa yegg nay coordonné tey suba la soog a envoyé courrier ba le commissaire du quatrième ba mu xëyee la ñu woo pour ñu jël si arrêté bi loolu am na lu bëri du mu wàññi si suñu mobilisation. te beneen yoon nag bu ko defee bu fekkee ñun préparé nañ suñu manifestation duñ si dellu ginnaaw donc Diagne Solution ñu ngi lay jox ñu xaw ko tënk ndax temps bi mu ngi tànn. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa ngi nuyu Sénégal yëpp di seetaan di wax ne dafa am loo xam ne dañ ko gis ci réew mi mu jaaxal ñu te lim ñu jaaxalee du kenn mooy Macky Sall nee na kenn du ree léegi nag dama bëgg Sénégal yëpp ree xam ne li naqari Macky neex nañu. <laughs> li ko naqari moom la ñuy def parce que nag Macky Sall moomuñu comme li ñuy wax juruñu jënduñu kon bu moom bu ko neexee mu ko jaree ñu ñun dañu ree moo tax àll say kat Youssou Ndour dañoo wéyoon ne teex teex may ko ñëpp di ree ñoom ñuy ree ku am jàmm di ree waa nu mu tudd nan la tudd moom nee nañ déedéet man du Tamba déedéet déedéet du Tamba njaboot lañ dañuy ree ba mu neex mu neex la ree mu naq di dañuy ree parce que gis nañ ne bu dee ree rek moom dina dee man moom xam naa ne moom dinaa ree ba ñëpp wàcc moom nga ñëpp ree <laughs> jërëjëf wasalaamualeykum wa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 mbokki jullit yi mbokki sénégalais ñu ngi leen di nuyu yéen seen tur ak di am kontante ak mbégte ci taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ko fii tey ci place bi la nation nga xam ne ni mooy place bi nga xam ne moom lañ jagleel nation Sénégal ñu am mbégte ci taxaw fii ci xeex dëgg xeex dëgg gi nag euh, day suñu devoir citoyen bu nekk da ngaa war ci xeex dëgg ñu tax ñu woo ci ñëpp ñëpp wuy si tey jaxeer dëgg ko itam mooy tax ñu am jàmm jàmm moom mooy indi dëgg ndax ala alin képp ku la dig jàmm te joxu la dëgg kooku mënul indi jàmm ci réew dëgg jàmm ci am réew dëgg rek mooy tax mu mën a am nag malheureusement dañoo ànd ak gouvernement boo xam ne état boo xam ne nii xamul dafa mel ni xamul li mu yor lu toll nii Sénégal nga xam ne 1960 ba léegi ay bañkat a fi nekk doon nit ñu mën a bañ doon askan wu mën a bañ ba pare teg ci askan wu pacifique pacification bi am tey moo tax Macky Sall sañ a def li muy ndax am na yeneen yu réew yu mu doon doon yeneen euh, kii bu mu doon doon Macky Sall wàcce nañ ko bi yàgg ndax chaque jour mu def loo xam ne dina jar. peuple du wàcc askan wàcc jëflante ko moom mais ñun dafa am lu ñuy seet am lu ñu bëgg am ñu xam te moom xamu ko mooy dañ koo dénk am réew mu yaakaar ne dañ ko koo dañ koo dénk am réew mu yaakaar ne réew mi dañ ko koo jaay wala dañ ko koo tayle ñett yëpp dara amu ci bu fàttali ko circonstance yi mu jëlee réew mi moom Macky Sall la bàyyi xel ci ne réew mii ña fi nekkoon ba tey muy lan dañoo xeex 2011 2012 23 juin di xeex ba fukki bakkan ak ñett wadd Ablaye Wade wàcc moom fal ko jox ko réew mi amoon ci moom yaakaar ne bu dikkee la ñu doon xeex muy injustice la ñu doon xeex muy démocratie ah bu boobaa da koy gën a jàpp gën ko dëggal gën koo suuxat waaye dafa dikk jël lépp sànni ci àll ba li mu njëkk a def pour moom réussir na ko mooy dafa jënd presse bi lenn ci presse bi lenn ci presse bi la jënd lenn ci presse bi ay patron de presse ay patron groupe la jël may ma tuuti rek ma ñëw la jënd def leen ci seen poche ñoom itam ñu jël seen i seen presse ñoom itam def ci seen poche ñenn ñi ña des camouflé wu mel ni dañoo nekku na ñoom xamuñu leen mais li ko réer mooy dafa am benn force maanaam classe boo xam yi mooy réseaux sociaux nga xam ne àddina bépp léegi dañ ubbi kenn mënul nëbbu kenn information yi mu daan jël di ko léegi da nga ko génn ko ci kaw ji léegi lu xew léegi léegi ñëpp xam loolu nag moo ko naqari mais réseaux sociaux yooyu pour moom mu xeex ko moo mu dem ci géej gi di kal géej gi di géej boo xool avancement yi mënu nekk. li ñuy bañ na li ko bañ tey mooy injustice bi nga xam ne mu ngi jël doomi jaamur yi instrumentalisé police ak justice ak gendarmerie téye ko ci loxoom di intimider doomu aadama yi ba ñuy duñu xeex seen i droit loolu mënul jàll. ay force spéciale yi muy wax ay rebelle ay ay ay terroriste loolu compétence militaire la te ñoom seen yoon lekku ci. bu doon ay rebelle la lay wax li mu wax dëgg la kon militaire yi ñoo koy réglé te militaire yi ba lay déglu benn wax kon nga xam ne loolu ay tappale la. te loolu ko ko defar mooy justice Macky Sall lu mu bon moo ko gën a bon ndax justice bi moo gën a bon mooy lan lépp lu bëgg Macky Sall bëgg a def ci ak ñaawteef justice moo ko koy defal jaarale ko ci ay procureur jaarale ko ay juge te nañ xam ne Sénégal moo leen fay moo leen di moo leen di liggéeyloo Macky Sall moomu leen dañu war a am indépendance di atti dëgg ndax alquran wax na ne bu ngeen bëggee jàmm de leen def dëgg bu fekkee ne bëgg ngeen jàmm na ngeen di àtte dëgg léegi nag bu fekkee ne Macky Sall day jël justice bi procureur yëpp teg lu ko neex def jël doomu jàmbur yi di def ay man mandat dépôt ay def ay garde à ñuy dee loolu na ko arrêté François Mancolo mi nga xam ne di passé bu mu dee procureur de la république taaw dafa mbëkkoo dafa xaru loolu loolu dëgg te nee am na vidéo bi moom François Mancabou procureur de la république nee na am nañu vidéo bi ba tey gisuñu benn vidéo kon nag ñu ngi exigé mu bàyyi libéré leen immédiatement sans condition loolu la ñuy wax di sant ñëpp di gërëm a wasalaamaaleykum min allahi taala wa barakaatu bay na Gueye bokk force sociale salaamaaleykum maa ngi nuyu bi nekk tey da leen nii rek la gis nga Sénégal kenn ëppuñu fi wàll dañ gëm ne Macky Sall ëppale wuñu Sénégal moom ni muy yàqee Sénégal yi noonu la ñu war a xeexee pour defar Sénégal léegi nag dama bëgg ngeen xam Macky Sall moo ngi Macky Sall c'est un vrai comploteur Macky Sall suba ba ngoon lu mu comploté rek lay mën ay complot lay teg fa lay fa lay nekk di xaar muy comploté pour faagaagal ak opposant loolu mooy liggéeyam ñun amul président de la République ñun comploteur la c'est un vrai comploteur mu ngi comploté nag léegi nag nga xam ne dañ koy dëbb gi nag li muy jéem a ruumandaat mooy ay affaire terrorisme bi muy woote nga xam ne bu dee ñu lay tole moo di force sociale ñun nangu na leen wala nga force sociale bu ñu ñëw ay force sociale yu patriotique lañ ay force yoo xam ne dañuy jaay seen bakkan ñu seen askan ay force yoo xam ne dañoo bëgg suñu réew mu jaral ñu lépp te Macky Sall xeex bi ñuy xeex ak yow mënoo cee am ndax ci peer ou ci peer ak foo mën a jaar da ngay ñaax parce que ñun li ñuy def jaamu yàlla lañ ko jàppee li ñuy def yàlla rek tax ñu koy def. billaahi wallaahi wal kitaab li ñuy def bu dee gis nañ ci dara ministère wala dara àdduna yàlla bu ñu njëriñ war na Serigne Touba bi ñu xeex ngir suñu dëkk baax parce que li am dëkku jàmbur yi ñun waruñoo mën a joom Afrique dafa des ci ginnaaw te dafa jot nag Afrique ba mat boppam mu jaral ñu loolu lu nekk da nag ci loolu laay wax sama frère sénégalais yëpp naan il est temps que ñu arrêté suñu souveraineté ci fulla ci jom ci fit ci fayda Macky ak ñi mu àndal di di di sos suba ngoon bu nekk bëccëg di ñu jiñ ay rebelle di ñu jiñ ay terroriste lan lan nga def loolu ci laa mel la yàq mais nag askanu Sénégal xam nañu baax na ñu duñu ay terroriste ñu ay defaru ñaaw dégg ñun ay ritu dëgg lañu te ñun ana dem patriote ma ne ko bëgg leen wax tam leen affaire suñu frère yi mu ngi mu dëj ci biir suñu frère yi mu dëj ci biir ñu ngi leen di jéem a korom ci lu nekk parce que comme la jël ñu ngi leen di dig lu nekk pour chef d'accusation lu mu nekk seen kaw ñoom ñu nangu ko mais nag ce sont des patriotes ma xamaloo ko tey Macky Sall ñu ngeen di ci gën ce sont des patriotes te yow patriote il est intègre te quand on est intègre on va être faible ñooñu ñoo mu tëj ay gisul dëgg lañ Macky Sall mënoo leen intimider mënoo leen xooxatal lu tey nit ñu mën a puso la comment continuer jaa ngeen jëf. kon gars yi euh, Mamadou Lamine Samb mooy wax ci turu Macky Sall ñuy ñaan ñëpp ñu ne ci ginnaaw nañ jege laaj stop leen. camarade délaissez s'il te plaît Maodo Lamine Samb mu toog tuuti mafia bi moom mooy dernier intervenant. asalaamaaleykum gars yi ñu ngi nuyu sénégalais ñu nuyu waa diaspora ñu ngi bokk internet bi yëpp euh, dañuy def benn rappel historique rek parce que am na yu bëri duñ si jaar parce que mbokk yëpp jaar nañ dafa am lu ñuy war a fàttaliku sénégalais mooy Macky Sall ba mu bëggee fal dafa am phrase bu mu waxoon. dama ne woon Abdoulaye fii dafa am benn vigie citoyenne bi fi nekk te cette vigie là fera à la puissance à la toute puissance du flic et du fric ba mu bëggee fàllu loolu la jaayoon Sénégalais yi di ko rappelé nag vigie boobu jógewu fi ba léegi mi ngi fii vigie boobu mi ngi fii ba léegi mooy mafia kat-kat te ñun dañ koy sant nag jàpp bu mu jàppee Ousmane Diagne ñun dañ ko ciy sant xam nga lu tax ñu war ko ci sant tey daf ñoo defal lu rëy rëy rëy mooy jàpp bu jàpp dafa tax activistes yi nga xam ne ñoom la ñu gënoon miin seen kanam ci xeex dañoo tax ñu mun a am benn benn genre plateforme boo xam ne ñoom ils vont se regrouper autour de ça ñu leen di ci gërëm nag bu bëree bëree bëri parce que foo nee xeex rek sama genre bi daan nañ ñëw marche mais daaw ñu taxaw ci kanam micro wax daaw ñoon fës tey dañuy ñaan ñooñu ñi nga xam ne ñoom la ñëpp xamee xeex ñoom nga xam ne ñooy titulaire yi dañ dem toog ñu bàyyi xeex bi suppléants yi comme nu mu ko defoon ci législative combat bi nekkatul xeexu titulaire bi suppléant yi ñoo jël di ko rappelé nag que li mu def nii xamul sax li mu def parce que dafa tax nit ñi radicalisé wu te dëkk nag suñu demee ba njiit muy xoqatal doomu askanam jeunes yi nañu radicalisé wu ñun nag lu ñuy wax dafa sant lu ñuy wax dafa sant nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñu dellu seen kër ay père de famille lañu ay kilifa lañu ay responsable mi dañu am ay jabar am ay doom comme moom ni mu amee jabar am doom ba pare boole yilif ñëpp dañ naan jiit ah soo tëddee njaaxaandaay defoo li la war dina am gore bu ndaw boo xam ne dina jóge fële di na dina baaraam baaraamam boo xam ne waru faa yegg wax bu yegg nag dafa ko moom. di leen di ñaan nag di wax mafia bi bu mu yebal ci réseaux sociaux yëpp. réseaux sociaux baax na mais day am fu muy toll nit ñi da war nañ def descendre sur le terrain donte nag duñ jël layaa ah, ñi ñu wax jaar nañ ci ba pare préfet def na lu ko neex ñu ngi ko ciy gërëm ñu ngi ko mais di wax ni prochainement mu demee noonu di wax nag jot na leader d'opinion yi les hommes politiques ñu ngi leen di lancer un message fort parce que xeex bi seen xeex la ñoom bañ leen fi jàppee gis nañ ko bañ fi jàppee député yi duñ jox sax seen tur nit ñi dañuy ñëw xeexal leen kon xeex mi seen combat la parce qu'ils ne sont pas à l'abri de ça